république son excellence du coup invité ci li nga xamanteni moy euh na bàyyi na libéré doomi jàmbur ji di Guy Marie Sagna avant le 28 té buñu ñu ci le 28 qu'il amène une réponse franchement na bàyyi tànkam lu bi jaajëf ci liñ koy xaar moy li caat wax du ci yi ni mm. du ci yëfu caaxaan yi du ci yak xaalis Sénégal mm-hmm. mais ci ñu koy xaar ci mooy une euh, euh, une justice libre ci li ñu des droits mhm. yoo xamante maintenir une liberté d'expression ci li ñu koy xaar dëgg dëgg dëgg que Guy Marie dafa war ñeu fekk si le 28 mars bi di am inshallah kon yalla ko yàlla génne Guy Marius euh, Sagna donc merci chat chat merci beaucoup. jaajëfatee mais kilifa merci. merci beaucoup Sylla. merci à tous les auditeurs.